gan gi Pape Amadou Fall sunu doyen ci taskatu xibaar yi nekk itam analyste politique ñu ngi lay nuyu. maa di la dalal ak mbégte mu ci matinalu réew mi FM alors doyen ñu tàmbali waxtaan wi ak candidature yu bari yi nga xam ni dégg nañu ko ci njeextalu ay bés bi am na yu jiitu woon sax waaye élection présidentielle bi ñu dëgmal euh, mënees naa wax ni dara leeragu ci teewul candidature yi di jollee fu ne loo ca jàngat. ma di la gërëm di la sant di nuyu seen euh, auditeurs yi ak euh, surtout auditrices yi euh, yegg gu ci ñaar fukk ak juróom-ñaar yi nga xam ne moom lañu ñu xayma woon mm. ci élection bi nga xam ne moom la ñu mujj jàll ci wàllu présidentiel yi mm-hmm. kon nag xëy na war nañu mën a séentu ne nii nga xam ne seen politique u Sénégal noonu lay doxee mm-hmm. mais am na ñeneen ñoo xam ne peut-être danañu yëkkati seen kàddu mm-hmm. li feeñ ci li nga xam ne moom mooy ay bés bi ñu génn rek euh, mandargaal na lu bari ci li nga xam ne moom mooy bëgg-bëgg yi waaw ndax nag euh, maa jiite sama réew dafa doon loo xam ne euh, citoyen boo nga xam ne yàlla may na la taxawaay ba ak la nga xam ne moom mooy kàttan nga bu la neexee nga yëkkati sa loxo mm. yëkkati sa loxo nag da ngay wuti ay matuwaay ak ay jumtukaay yoo xam ne ñoom ñoo lay gunge pour nga mën a yegg ci loola mm. alors candidature yooya peut-être bi ci gën a fës di bu Idrissa Seck ñu koy séentu euh, ci 2024 donte waxagul lu leer nañ waaye njort nañu ne dafay ndax dem loola ndax du indi jiixi jaaxa ci biir benn Bokk Yaakaar bu ñu xamee ni itam président Macky Sall ñu bari tey porté nañu candidature am jëm ci élection présidentielle bi ñu dëkkmal ndax mënta yëngal coalition bi wala lu ñu déggoo la mun na ko yëngal lu ñu déggoo aw ma ndey lu mel noonu. Hmm. Ah, ndax li nga xam ne moom lu ñu mën a jàpp mooy ne Idrissa Seck ci géewu politique gu Sénégal 1987 la nekk ci wetu Ablaye Wade. Hmm. ba bi ñu tàggoo mu wéyal li nga xam ne moom mooy yoonam ci wàll li nga xam ne moom mooy eh, yoonu taxawaay te eh, ci fi nga xam ne eh, fa la ñu mën a duut baaraam mooy. woote bii nga xam ne moom la ñu mujjoon def ci wàllu présidentiel bi ba muy dagaan baatu askan wi dafa doon wax ni man maay doon ñeenteelu président la république bu Sénégal. Hmm. loolu amul dara loo xam ne ci wàll yi nga xam ne moom mooy doxalinam mën nañ ne mën naa mën na koo génne ci li nga xam ne moom mooy xelam ak hmm. taxawaayam. Hmm. kon tey buñ ci egsee mu yëkkati eh, loxoom wala bokk ruumandaat yi jëm ci li nga xam ne moom mooy taxawaayam. war warta mën a bett kenn hmm. jéego yi nga xam nag moom moo am ci diggante euh, bi mooy dafa jegeñ ci ki nga xam ne moom mooy Macky Sall hmm. te da daan wax ni du jaaroo taal ak Macky hmm. waaye def na jéego yoo nga xam ne ndax buñ ko joxee li nga xam ne moom mooy conseil euh, économique social et environnemental ah c'est parce que euh, Macky Sall daf ne kii comme tàllal na ma loxo ba jegeñ si na ma naa ko jox li nga xam ne moom it moom mooy gëddëm ndeete loolu doyul ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck hmm. ci biir coalition bi nag yëngatu mën na cee am lool ndax am na ñoo xam ne du ñu mës a ànd ak Idrissa hmm. loolu moom lu taxaw la am na ñoo xam ne du ñu ko mës a euh, jàppale ci lenn loo xam ne daf ko yóotu bu dee ñu jëm ci li nga xam ne moom mooy dagan baatu askan wi la hmm. kon euh, ndax bu defee annonce am moom ci boppam day daal di ne tekki naa sama ndombo ci fi nga xam ne moom mooy conseil économique social et environnemental wala day xaar Macky Sall ne ko ah yow ak ñi nga xam ne joxoon naa leen sax ay ndombo yu ministre na na nanu ñaanalante ba beneen jamono. Hmm. ndax itam mënuñoo njoxtu muy kii président Macky Sall nar a tànn xëy na bu demoon tey ba décidé ne du bokk ndax ñetteelu candidature boobu ñuy rumandaat ku ne xam na ne mën naa yëngal réew mi tàmbali na sax daanaka ndax euh, keneen ka ñuy làq ca ginnaaw mënta doon Idrissa Seck. xam nga lu ne mun naa am ci wàllu politique. Mhm. politique moom bu ci dàq dara. Mhm. Euh, ndax loola euh, su fekkee Macky Sall daf koy daf koy def xëy na waxtaan na ceeg ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir coalition mhm. rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir partem parce que partem parti Macky Sall partem muy APR. dañoo bëgg am seen candidat. te bu ñu sañoon seen candidat moom la waa coalition bi di jàppale wala bokk di ëpp. ci li nga xam ne dañuy def ci biir coalition bi ndax bu ñu bu ñu bu ñu dàq ne xëy na Idrissa Seck nekk na ci li nga xam ne moom mooy wetu makki Sall mais am na ay parti yoo xam ne nekk nañ ci benn bokk yaakaar tey yoo xam ne ñoom it bu ñu ngi naal di seet ndax du ñu ut li nga xam ne moom mooy seen yoonu bopp pour mën a am li nga xam ne moom mooy seen candidat waa parti socialiste am na ñoo xam ne dégg nañ seen baat mais euh, mënuñoo wéy rek di di di topp ki nga xam ne moom mooy coalition bi nekk ci ginnaaw Macky Sall. Hmm. te baat yu mel noonu boo saagoonul di nga ko déggaat ci fan yi. Hmm. alors euh, Benno Bokk Yaakaar ba tey itam xamaguñu ku mel ni sa Seck tànk bi mu ci taxawee ndax bu ne dañu dëgëral coalition ba noppi moom mu mel ni kuy xëcc candidature loola itam naka lañ ko war a jàngatee. waaw xam nga xam nga géewu politique moo moo moo doon loo xam ne dafa lëndëm. Hmm. foo ca teg loxo ne yoon wii mooy ubbeeku rek mën nga ci am li nga xam ne moom mooy mbett ndax la ñuy nas ak la ñuy xalaat du doon li nga xam ne moom lañuy ñuy gaaw feesal ci li nga xam ne moom mooy penc mi hmm. ba tax na li ñuy jëm ci wàll yi nga xam ne moom mooy seeni taxawaay ay feem ay feem ay feem ay naxante waaw ba mën a dugg ci eh, yoon woo xam ne xëy na lañ cay am Idrissa sekk bu ñëwee ci wetu ki nga xam ne moom mooy Macky Sall euh, am na ñoo xam ne nee nañ te biir waxtaan ñoo xam ne ak ay kilifa. Hmm. ak ay kilifa la ko la ko la ko jaarale bon. ba hmm. ñooñu ne ko demal boo demee euh, Macky Sall bu soobee yàlla euh, buy bu bu comme mandaam day jeex. Hmm. yow lay jox war laa mën a jiital ci wàll yi nga xam ne moom mooy taxawaay. ba mu duggee léegi nag gis ñun leen lu jëm ci li nga xam ne moom mooy loolu. Euh, buñ déggee sa Seck di fàttali ni président Ablaye Wade moom la waroon a jox deux mille euh, deux mille euh, douze bi muy fegal ba ni sax dafa trahir seen projet bi ñu amoon te mooy libéraux yi des ci bopp réew mi juróom fukki at ndax mënuñoo njortu ne xëy na ci loola la déggoo ak président Macky Sall ba tax mu ñëw ci wetam ak doxalee nii muy doxale xam nga xam nga Fatou. Hmm. gis nga ki nga xam ne dafa dafa doon ci wàllu politique. Hmm. bu mu la wax mukk nga mbéj sa doom. Hmm. bu mu la wax mukk nga bëmax sa doom wax naa la ko sànq hmm. ay feem ak lal ci la dund loolu mooy li nga xam ne moom mooy seen taxawaay hmm. loolu ngay wax mën naa am man aw ma ci ndey ci lu yegg ca loola ay njort kese lañ ci am parce que amul kenn ku gën taxaw ne ba ma waxee Idriss Seck nangam wala Idriss sekk wala Macky Sall ne ñun kat ba ñu waxantee nangam kon ci wàll wi nga xam ne moom mooy ànd dañuy wax ne Euh, ay njortu kese la ñuy mën. Mhm. taxaw ci wàll wi nga xam ne moom mooy séntu. Mhm. su fekkee nag Macky sàll daf koo waxoon loola loola yaakaar naa ni kon jot na moom Macky Sall ci wàllu boppam mu wi li nga xam ne moom mooy waa benn Bokk Yaakaar waa partem ak askanu Sénégal. Mhm. ne leen man kat damay dem sama ki nga xam ne moom lay ñaan mu wuutuma fi moom mooy doon ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck. ci wàllu doxalin la mu leer. mu leer. ndax yaa ngi xaar élection présidentielle bu makki Sall dul bokk sonkoo Karim Wade ak Khalifa Sall 2024. Euh, du ñu dàq dara ci réew mi li tax du ñu dàq dara ci réew mi euh, mooy makki Sall ne ñu coow li bari lool ci ne demal demal demal mais moom yëkkati woon na kàddoom te yaakaar naa ne fa mu tënk fa mu tënk woon la nga xam ne moom mooy kàddoom. Hmm. foofu la ko nit ñi di xaar. Hmm. bii mooy suma dernier mandat. loolu la waxoon. Hmm. lan moo cay toppaat nag dañu naan teg ki nga xam ne moom mooy xalifa euh, Sall ak euh, Karim dañ naan seen jaar-jaar seen diggante ak li nga xam ne moom mooy yoon ci Sénégal daf leen tegal li nga xam ne moom mooy gàllankoor loola ndax mën nañ ko woyofal ba ñoom ñu samp li nga xam ne moom mooy seen candidat am na ñoo xam ne am nañ ci yaakaar am na ñoo xam ne dañ ne ah euh, gisuñu lu jëm ci wàllu bi nga xam ne moom mooy ñu yewwi leen ci loolu. Mm. Ousmane Sonko nag moom dafa nekk ci tolof tolof. loolu mooy li nga xam ne moom mooy dëgg ndax woo nañ ko ci wàllu yoon ñaari procès yoo nga xam ne ñëpp dañ leen teg. Mm. di déglu fi mu fi toll nii kenn xamul fan fan la mbir mi euh, sottee kon que Macky Sall Khalifa Karim euh, ak Ousmane Sonko ñoom ñeent ñëpp ñu bañ a bokk ci li nga xam ne moom mooy élection. Euh, bi nga xam ne moom moo moo di ñëw àllu mën a ne la. Hmm. waaye nag euh, mën naa yëngal réew mi. Hmm. réew mi xawoon na yëngu sax jamono yële mbiram Ousmane Sonko bokk ci li ko gën a yëngal ndax euh, mars 2021 ku ne mi ngi koy fàttaliku keroog itam xaw tuut ñu dalaat ci lu mel noonu ndax tey boo xoolee ci wàll politique dafa mel ni réew mi moom daa toog rek ci ci ci ci bomb bu mën a kalaate saa su ne. baat boobu moo indi am na solo. Hmm. bomb bu mën a kalaate yàlla bu waaw yàlla bu mu kalaate waaye bomb bi moom. Hmm. ñu ñoo ko eh, tabax fi mu toll nii mooy sunu sunu responsable politique yi ñoom ñoo ko tabax fi mu toll nii ba pare nag di ko sol ay ndel. Hmm. waaw di ko sol ay ndel ci mu toll nii te loolu nga xam ne moom lañuy ñuy tabax fi mu ne nii am na ci ñoo xam ne bàyyiwuñu xel sax ne ñu ngi yàq li nga xam ne moom mooy Euh, xelu askan bi hmm. rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi ndax ci wàllu bi nga xam ne moom mooy wàllu wàllu taxawaay am na loo xam ne kenn du ko suuxat hmm. ci réew rawatina ay kàddu wala ay doxalin hmm. wala li nga xam ne moom mooy ay jëfin moo tax ñu bari fi mu ne nii nee nañ ah tey ñoo dellu ginnaaw loolu responsable politique yi ñoom ñoo ko moom parce que boo déggee kàddu yi nga xam ne moom la kilifa wala këru diine yi wala yenn kilifa diine yi sax yëkkati mm-hmm. fan yii nga xam ne moom lañu ñu génn di ñaawlu di ñaawlu di nga xam ne moom mooy kàddu yi dégg wala doxali ñi nga xam ne moom la ñuy seetlu dañ ne Sénégal te ñoo dal te def ndànk mm-hmm. la taal feneen wax dëgg fa yàlla mën nañoo taal mm-hmm. te ñun dafa mel ni ñun ñoo bëgg sotti essence suñu bopp waaw dafa mel ni fi mu ne nii ñun ñoo bëgg sotti essence suñu bopp ndax loolu nag euh, juróom-ñaari nit ci wàllu politique jar nañ ko. Hmm, jaruñu ko alors lan nga gis ni moo ñu mën a génnee kon ci xeetu guuta gi ñu ne yan yoon lan war a jaar. xam nga euh, daan nañu toll ci jamono yoo nga xam ni ci réew mi. Hmm. Euh, daan na tar te metti lool waaye dafa am ay kilifa yoo nga xam ne bu ñu jógee ndéy yi nga xam ne moom la ñuy déeyoo te askan wi. dañuy yew rek ñu leen a ah, sotti na jàmm taxaw na war nañoo mën a àndaat def ci li nga xam ne moom mooy doxalin ñooña ba léegi am na ci ñoo nga xam ne seen baat euh, barkel na ci li nga xam ne moom mooy réew mi hmm. ñooña la ñuy séntu ci wàllu nga xam ne moom mooy taxawaay ñu war a jóg nag waxtaan waaye waxtaan ko nga xam ne noppam dafa ubbeeku it nag hmm, hmm. parce que booy wax ko nga xam ne moom noppam ubbeekuwul la ngay wax du ko dégg Eh, eh, eh, déedéet daf waxuma la du ko dégg daf laa bëggul sax déglu ba di la faale. Hmm. soo ko waxee moom nii mun na la waaw bu jógee def leneen loo xam ne wute nag la nga xam ne moom mooy taxawaay kon dañ ne nañu séntuwaat nga xam ne moom mooy wala boog nañu xoolaat ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, ŋànk politique ñi nekk ci ku jógeek ñi nga xam ne ñoom ñoo yoree li nga xam ne moom mooy nguur gi tey ñu ñëpp la bëgg ñu boole toog. waxtaan ndax Sénégal kese moom moo fi am solo. Mm-hmm. ku taal réew mi boo boo faloo it <laughs> nan nga koy nan ngay fay. fay doo fi fekk réew moo jiite. Mm-hmm. Ah, waaw mm-hmm. ñu jeexal ak tournée présidentielle bu euh, njiitu réew mi ma nga ca Pakao tey diwaanu Sédhiou euh, tournée économique lañ ko tuddee waaye lan moo làqu ci ginnaaw lan la ci président Macky Sall di wut ci sa sa sa xam-xamu journaliste ak analyste politique. xam nga du du président de la république jóg. ci Sénégal ba muy Sénégal ak léegi nag rawatina at moo xam ne dañ ne année électorale la saa bu président de la république jógee rek ñu ne ah uh, gis nga jumtuwaayu li nga xam ne moom mooy réew mi moom lay jël di ko defee li nga xam ne moom mooy wàllu wàllu politique uh, loolu yàgg na. Mm. Uh, te man yàlla may na ma alhamdulilah rabbil alamin ajjuma laa jóge laa jóge Sédhiou def naa fa ay fan. Hmm. wàllu nga xam ne moom mooy question yoo xam ne dañ ko doon def ci eh, taxawaay li nga xam ne moom mooy suñu journal du journal la la Gazette ma hmm. tudd ko. Hmm. boo demee ca fa nga xam ne moom mooy Sédhiou déglu li nga xam ne moom mooy eh, kilifa yi ak askan wi. ci li nga xam ne moom mooy seen i bëgg-bëgg. li nga xam ne moom mooy seen i yitte Sédhiou eh, am na koo xam ne daf na ma <laughs> mais fii dëkk bu ndaw la woon rek. ñu ñu def ko capital région. Mm-hmm. capital région boo xam ne hôtel amu fa. Mm-hmm. boo amul ku la ku la ku la uh, uuf. héberger euh, la tural mm-hmm. la héberger euh, boo sàggul sa tumurank mën naa mën naa yomb loolu boo fa dikkee te xamoo te yeneen li nga xam ne moom mooy soxlay jigéen ñi soxlay askan wi ci wàllu njàng ci wàllu wi nga xam ne moom mooy wér-gu-yaram ci wàllu bi nga xam ne moom mooy décentralisation parce que Sédhiou dañ ko bàkkee ci dëkk bi gën a ndóol tey. ci li hmm. nga xam ne moom mooy Sénégal. Hmm. dëkk bi gën a ndóol tey ci Sénégal. te boo seetloo Sédhiou li jëm ci wàll mi nga xam ne moom mooy Saalum Darkase. Hmm. muy Andakar. lanu fay lanu fay ñoral. amul feneen fuñ ko ñoral ci fi nga xam ne moom mooy réewum réewum Sénégal kon ci wàll wi nga xam ne moom mooy industrie ci wàll wi nga xam ne moom mooy jëm trans transformation lu jëm ci wàllu nga xam ne moom mooy tàggat mm. euh, ndaw yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi nga xam ne ñoom koomu Sédhiou ñoom ñoo koy rek ñoom jigéen ñi seen wàllu taxawaay wax dëgg fa yàlla war na tax rek président la République dem fa te nag ñu jàpp ne Fatou. 2015 mm-hmm. euh, Macky Sall demoon na ci fa nga xam ne moom mooy Sédhiou. février 2015 waaw. ba mu fa demee lanu tënkoon ne moom lañu war a defal Sédhiou. Mm-hmm. ngir suqali deux cent milliards la wax. Hmm. tey bu ñu takkee li nga xam ni moom la ñuy def ci Sédhiou du ma ni yegg nañ ci deux cent milliards yi. Hmm. waaye am na bokk ci ay jéego yu bari yoo xam ne def nañ ko fa. Hmm. de sorte que man ki nga xam ne àndoon naa ak moom te moom miin Sédhiou def ne moom mais mais dëkk bi ni mu soppeekoo moom la affaire bi moom macha allah. waaw kon nee nañ 63 pour cent des taux d' exécution. waaw liggéey yi ñu fa sumboon. booy dugg ci biir dëkk bi rek hmm. hôpital bi ci ngay jëkka a hmm. seen hôpital bu bees bi booy dugg ci dëkk bi hôpital bi moom ngay jëkk a jot boo duggee ci biir li nga xam ne moom mooy kart yi loolu du xëy na du loxo état hmm. waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy waaye doo ñooy doomi Sédhiou tey tabax yaa ngay bari ku ci nekk bëgg a wane ne fii kat moom mooy sa cosaan te nag li nga xam ne moom mooy le pakaaw le pakaaw ci wàllu li nga xam ne moom mooy culture dafa doon loo xam ne lu am solo la mm-hmm. waxtaan naa fa ak ki nga xam ne moom mooy euh, l'ancien maire ministre di mm-hmm. Bala Moussa Daffé mm-hmm. ci wàllu nga xam ne moom mooy Sédhiou jéegu yi nga xam ne defoon na ko ñu séntu ne président de la république war na ko mën a yokk kon dem gi daal tey dina leen mën na leen amal njariñ ñoom waa Sédhiou mais loolu moom mooy taxawaay bi parce que nag Macky Sall même bu fekkee dafay politique euh, dañ naan politique politique de développement bi nga xam ne moom la ñuy séntu. en hmm. tout cas foofu sa séntu mooy li nga xam ne moom la ñuy xaar. Hmm. te am na solo jërëjëf doyen ñu ngi lay gërëm bu baax a baax amoon te dalal la ci matinalu réew mi FM tey Pape Amadou Fall di journaliste analyste politique itam jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Fatou kon nag. Euh, kenn dal ak jàmm te nga nuyul ma également kilifa kër gi alhamdulilah dina ko dégg euh, dina ko dégg euh, dina